di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ndokkeelit jullitu yàlla yépp ci gàmmu gi di ñaan fu jullit mën a toll wala fu mënta nekk li nga sonn mu néew mu bari ngir sàkkoo ko yiw ci guddik sang bi yàlla na la ko buur bi nangul te nangulee ñu ko ca na mu toll moom buur bi bañ ñu ko nangulee ci nu ñu toll ndax doomu aadama bi ni mu toll boo ko ko yàlla nangulee musiba dal ko ndax doonoo doomu aadama bi fa mate di fa manqué fa mën a tooñ waaye yàlla buur la boo xamante ni fa tabaarakallaahu mbaaxam nga foo ko natt ëpp na ko kon dañuy ñaan yàlla ci mbaaxam a kàttanam mu nangulee ñu ko ca na mu toll ba ñu ko nangulee ci nu ñu toll di ñaan yàlla na bu mu doon suñ bu jëkk gàmmu yàlla nañ ko gàmmu ay at yu limoo limoo limoo waxtu wu ñëwee rek yàlla nañu fekk ci jot ak tal ak fekkee ak sutura ak tawfiix ak wér bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa mu mel ni nag am na kàddu wasaaya muy ndinkaane yoo xam ne sañ nañ koo dink képp kuy jullit mu mel ni ñun dañoo bokk ci xeetu yenent yàlla muhammad waaye yenent bi li lay boole ci xeetam lenn la mooy nga tënku ci ndigleem bàyyi tereem daan na toog moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg mu ni jullitu yàlla yépp danañ dugg aljana ba mu des ñu bañ ñu ne ko ah yenent bi no aljana neexee kan mooy dof di bañ a dugg aljana mu ne ko topp samay ndigle bàyyi samay tere danga nga dugg aljana ku mooy samay ndigle bàyyi woo samay tere doo dugg aljana kon ñu jàngatee ci ne ku tënkuwul ci ndigalu yonent bi bokkuloo ci xeetam kon xeetu yonent bi lala la cay boole mooy nga tënku ci ndigalam bàyyi ay tereem te ndigalu yonent bi kat mooy ndigalu yàlla tereg yonent bi mooy tereg yàlla waaye mu mel ni Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu bu muy wax ala azimu layla alwiladati xisbatan iza lam yakuni naxwa alxarami azulu Maodo bu muy waxtaan lu jëm ci gàmmu aju ci soñu ci nit ñi ñu gaañ ci seen bopp ngir lan ngir sàkku tiyaaba ngir lan ngir sàkku yiw ngir lan ngir sàkku defaru ngir lan ngir sàkku fajug ajo waaye Maodo lu mu ca teg mu ni ida lam yakuni naxwal xarami oddu gàmmu googee ñuy def nag bu demee ba nara nit ñi ba nara indil nit ñi euh, def ci lu xaraam Maodo nee na baga day mujj doon farata def nga mu mel nii toll nañ ci jamono joo xam ne nag jotaay yi ñuy jël di ko askanale yenent bi sallallahu alayhi wa wax dëgg yàlla dañuy tooñ yenent bi rek waaye jotaay yooyu amul ci cër lu toll ni ñu ne guddig yenent bi la ngeen sànni wante ay traak di ca wax lu waxuwut di ca def lu defuwut ba pare ni guddi gi yenent bi sallallahu alayhi wa moo ko moom wax dëgg yàlla yaa ngi tooñ yenent bi yaa ngi tooñ ki tax Sénégal yépp góorgóorlu ci gàmmu muy Cheikh Seydil Hadji Malick ak ku mu mën a doon nag laa mën a wax kilifa gu mën a doon kilifa gum mën a doon lu toll ni guddig yenent bi nañuy daw yenn yi am na ci guddi goo xam ne boo boo boo boo boo sàgganee ba yàqulee ca gisuma guddi gu la mën a jagalati am na guddi goo xamante ni soo góor góorgóorloo ba jagee sa gisuma guddi goo mën a yàquleeti kon nañuy bàyyi xel ci guddi yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñoo xamante ne nag jëmmi yàlla ji rek a leen tax a jóg am ñoo xam ne ras raas a leen tax a jóg waaye poñetitu àdduna kum tax nga def yenn yi wala ngay wax yenn yi xoolaatal sa bopp nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax sunu bopp te am yar am teggiin xam nu ñuy waxee nañ bàyyi wat sunu bopp xel bu baax am yar am teg teggiin xam nu ñuy waxee jullit bi buñ ko ne jàkk dafa dañoo war a xam ci moom ay melo yoo xamante ne day tegtal ni kii jullit la pas mu jëf melokaan rek melokaanam rek war na ko mën a tegtalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu référence moom la ñu yàlla xooloo moom la ñu yàlla royloo waaye ku amoon yar la ku amoon teggin la ku amoon respect la ku wàccee woon boppam la ku mënoon a muñ la ku màndu xoon la ku daan rafetal la daanul toppante moom sang bi ku ñaawal jëmee ci moom moom mu rafetal jëmee ci yow ku ko dog mu jokk la lii mooy jikkoy yenente bi te mooy jikkoy jullit sax mais koo xamante ne waxtu wu nekk moom ci defante lay oo ñi ci dagg sant ci histoire ci xuloo ci yaama ne maane la yor jikkoy jigéen kooku baaxut te nga ne yow oustaz nga dangay jàngale li may wax nag def askanelawuma ko kenn nit mais dama ko dama ko généraliser képp koo xamante ne yaa ngi jukk di waxal yàlla di waxal yonent bi dafa am jikko yoo war a rafetal rafet ci yow ba pare ku jug war a baaxal nag yow day fekk nga baax ba pare mais ku baaxagul mënoo baaxal dara ku jug war a rafetal day fekk yow nga rafet ba pare ku rafetul doo mën a rafetal ku jug war a jagal day fekk nga jag waaye ku jagul doo mën a jagal bu kenn wax na nag dama askanale sama wax ji benn oustaz dama ko généraliser képp ku yor jikko ji may wax xoolaatal sa bopp réew mi ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp a ko dëkkee ñàkk teggin ñàkk yar ñàkk xorma da ko fee jarul da ko fee matul benn góor yàlla bu baax muy se Mawlaay Cheikh Sey eh, Cheikh Sey Cheikh Tidiane Dem muy sët ci Cerno Alin Dem ca Njaay Kunda daan na wax mu ne nañ leen sàngante sutura nañ leen nëbbante ayib nañ leen dimbalante te jamono ji toll nañ foo xamante ni loolu dafa manqué ci réew mi te jikko yooyee ci jullit bi lañ ko séntu woon kon lu mel ni gàmmuk ren gii dañ cee gis yu doy waar xewee ci tiwaawoon ak fu dul tiwaawoon sax ci ñoo xamante ne woo nañ ay nit ñu ñëw ñii muuru wuñu ñii ñu ngi tatuwaat seen yaram yi ñu ñu ngi sol loo xamante ne maar deetaali xanaa sax ngénte wala céet yenn colin yi war nga ko wuru sa sol yëbbu ko fa waxuma la nag guddi gàmmu ñu ni guddi gi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jagleel jigéen ñi ñàkk classe ñàkk jom ñàkk sutura ci seen bopp ñàkk xorma en tant que jigéen fu ko yàlla teg nu ko yàlla ormaale nga doon ndey nga xamante ne képp ku baax mi ngi balle mu ngi ballee ko ci ñoom nga war a joxe bon exemple am ay njaboot lu toll ni guddi génnanti bi ngay sàggan ba fay wax lu waxut wala nga fay def lu defut wala nga fay sol yu doyadi yéen ñiy ay kilifa toog war a war a war a fa jëlee loolu mu mal ni yëf yi daf leen a neex yil mais buñ toll ci boobu jamono musiba am na su ko defee mbir yi nañ leen ko dellooxaat ci dellu ci dellukaay wa nañ leen ko teg ci teguwaay wa ñi yor micro laa wax di waxal yàlla nee na yenente bi nee na nañu yaraat seen bopp xam nu ñuy waxee rafetal wàccee seen bopp bu njëkk nag nit ñi dañ daan jàng ji ngir dindi réer ci seen bopp fas yéene koo dindil ay nit waaye jamono ji dangay gis ko jàng ji ngir bëgg dara ja dangay gis ko jàng ji ngir bëgg siw da ngay gis ko jàng ji ngir bëgg lan diw de allah bëgg ñu lay tagg loolu pour lan jàng moom boo ko defee jee ci daara ji rek li ngay njëkk a xeex ci sa bopp mooy nga fexe dindi réer dañal réer ci sa bopp boo ko dañalee nga sàkkoo xam li nga xam nga fexe koo jaamoo yàlla te sellal jaamu ga lii mooy mbir mi waaye toog ci maja di wax wax goo xamante ne bëgg bës wala di ci gaaruwaale wala di ci tappale wala di ci ut loo dugal ci sa poos loolu dañ ko war a jomb dañ ko war a dépassé nit simple sax war na rus yenn yi war na jomb yenn yi waxuma laa koo xamante ne da nga jóg uniquement nga ne diini nga fi nekkal nañuy nañuy sóoraale yenn yi baaxul rafetut jaaduwut bu ca topp mooy nabiyen yi mooy wéykat yi nanu xam bu baax guddi gu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nanuy xam guddi gu Cheikh Tidiane moom nañuy xam guddi gu ji Malik moom nañuy xam guddi gu sëñ Babacar si moom sëñ Babacar si ñi ko tagg bari nañ suñ ne tey tàkkusaanu sëñ Babacar Sy la mais ñu tagg sëñ Babacar Sy nañ jël yooyu ñu tagg ci sëñ Babacar Sy askanale ko ko wéy ko ko alaaji Malick nitu yàlla yi ko dar di ko tagg bari nañu buñ ne tey jii bisu alaaji Malick la nañ jël bayit yooyu askanale ko alaaji Malick wéy ko ko ba mu saf ba mu neex ñu firi ko ñu xam ne tey alaaji Malick la saf mais guddi yi nga xamante ne ñu ne yeneen bee ko moom ñu fay waxtaan alaaji Malick ak sëñ Babacar Sy euh, mu ngoog maam borom Touba ak euh, maam sëñ ala Baye Niass ak yooyu dafa amul sens Baye Niass radiyallahu anhu daan na dugg ci tànt ba génn da doo dégg turu kenn mu jëp ci tànt ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mag ñu baax ñi alaaji Malik noonu keneen a keneen noonu mais tey suñu bis yi ak suñu guddi yi ñi nga xam ne nee nañ yenent bi lañ koy defal da nga gis sëñ bi bala moo ñëw une heure matin wala deux heures di matin lay dugg bu duggee ñu ngay tagg préfet ñu ngay tagg président ñu ngay tagg ministre ñu ngay tagg euh, borom enveloppe yu duun yi fa la ñuy nekk ba trois heures jot su ko defee ñu dugg nag ci programme bi ñu ne léegi rek seen maam nii sama maam ne sama maam ne fa la ñuy nekk nekk nekk nekk nekk ba 4 jëm 5 jot tuuti la ñuy mos ci yenent bi wëy jolli ñu ñaan tasaaroo ba déwén léegi yenent bi ana lan la moom ci guddi gi lii jikko yenent bi lii jaaruwaay lii histoire lii yenent bi am ci ay maraaxil benn mara maraxala boo ci jël rek mën nga cee développé lu bëree bëri lu yaatu jullit ñi jëriñoo ko mais guddi gi lëmb lëmb lëmb ba guddi gi jeex ngeen ne bi moo moom guddi gi mais ana lan la ci yenent bi moom comme suñu maam lañ fay waxtaanee comme suñu bàyyi lañ fay waxtaanee comme suñu sëriñ lañ fay waxtaanee te ñu ne yenent bi moo moom guddi gi lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la kon nañu amaat yar bu baax amaat teg jiin jëlaat mbir mi teg ko ci teguwaay bi sii Sidil ma rek daal nee na azimu laylal wiladati xisbatan màggal leen guddi gi yonent yàlla Muhammad gane àdduna pour lan ñu koy màggal mu ne xesbatan ngir sàkku tayaabo xesbatan ngir sàkku yiw xesbatan ngir sàkku jéggalu yàlla xesbatan ngir sàkkoo defaru sa digganteek sa borom jàkk Maodo nee na loolu rek la ida lam yakun naxwal xaraami odulu su fekkee ne jëf googu nag ngay jëf muy gàmmu gi dalaa nara a yóbbu ci lu xaraam Maodo nee na bàyyi ko kat day doon farata de bàyyi ko day doon farata kon tey suñ programme yi ñu askanale yenente bi ah neexu la wax de waaye mujj ko bàyyi day doon farata di ndax li fay am góor ak jigéen jaxasoo ah paccaxoo bi fii ragalante yi ginnaaw fii taggante bi fii ah dangay dem ba mu yàgg da ngay mujj waaru ko ci ñàkk teggi ñàkk yar gi ñàkk xorma gi baaxut su ko defee nañ leen di daw yéen nii te doomu aadama bu nekk nag bu defee lu def ñu remarqué ne lii mu def kat jaaduwut buñ la ko waxee danga war a am am am am diñ gu toll ni ne leen carrément lii li ngeen wax dëgg la su fekkee ne jullit nga Seydina Omar ku nangu woon dëgg la Seydina Omar ku nangu woon dëgg la daan nañ ko wax dara mu ne ah Omar de xamee ko woon nii Omar daan na wax saaba wax Omar bàyyi waxam def lu saaba bi wax ngir lan ngir nangu dëgg Omar daan nañ ko corriger mu nangu kon yow mii oustaz di yarkat nekk ci diine ji di bay sa waar nga def lu def wut ñëpp remarque ko ci yow ba joxeñ la baaram ne la li nga def du noonu amal honnêteté bu toll nii nga ne nit ñi damaa jub. mais ana lan mooy ndey bi maanaa toog wane ñàkk kersa wane ñàkk yar wane ñàkk ma naan maa tay ak ku ma ko rokkas ma sabañ la ko loolu dafa doon jikkoy jullit waxuma laa jikkoy ustaas yeneen bi daan na daan na daan daan da day day digle mën day leen rafetal yàlla ci boppam bëgg kuy rafetal wax si waxsinu inna allah yuhibbul muhsinin yàlla nee na na ngeen rafetal ndax man yàlla maa maa maa bëgg mu rafet dee leen rafetal wàcce sa bopp am yar am xorma benn kilifa gu baax sama nit damay dégg muy wax ma ni ñaar war nañ koo doon muy jikko yàlla war koo jikko muy lan muy noppi ak nëbbu muy noppi ak nëbbu yàlla feeñal ñëpp nee na te kenn gisu ko waaye moo wax loo ñëpp te ba léegi kenn déggu ko mu wax kon ñaari jikko yi war nañ koo jikko yàlla moo feeñal ñëpp te kenn tegu ko bët moo wax loo ñëpp te kenn déggu ko ñaari jikko yi duñ ko doon ci borom bi te yenente bi daan na toog ba mu yàgg xaal dikkal ko ba ne taxallaqu bi axlaaqillahi maa mag leen dénk ngeen jikkowoo jikko yàlla waaye en tant que kat ñëpp di la bàyyi xel di la déglu ci diine ji ngay dagg santeeg di tiisanteeg di defanteeg ko ma ko sabañ mu ruux la ko vraiment yëfi ñàkk yar yëfi manqué respect yi yëfi ñàkk xoroma yi kenn koy nekk war na ko lu xeex ko ci boppam ak ci dundam lii daal lañ amoon message bu ñuy jàllale képp kuy jullit laa wax nga askanale yonent yàlla Muhammad ak guddi guddi ga mu leer la ne sa ndey nga fa war a waxtaane wala sa baay wala sa sëriñ yonent bi moomul guddi ga moomul biis ba loolu nay leer alaaji Malik foo wut folu wut yonent yàlla Muhammad foo wut folu wut kon guddeem gi buñ ko jël di ci ut buñ ko jël di ci ut luñ dugal ci suñ poos yi buñ ko ut di ci ut daraja buñ ko jël di ci ut tur déedéet guddi gu toll ni guddi génnent yàlla muhammad mbokk yi waruñoo nangu lenn li li li li xajamal di fa dox nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax yal nañu yàlla defal sutura defal ñu dégg ak topp defal ñu taysir ak najaax bi jaay siidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam way jiit yi ñu ngi ñaan yàlla jéggal leen oyofal suuf seen kaw leeral seen bàmmeel ñu nekk ci xat-xat jafe-jafe gàllankoor yàlla ko mën a tegg yàlla na leen ko yàlla teggil bi jaay siidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ne in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu